are not made in the U.S. They're made in Senegal. But they give them to the consulate. They tell them to hide it so that they can steal our elections. And we will not allow it. And I know the Secret Service, you're listening, and they're going to tell you, oh, he's engaged in criminal activity. Absolutely not. I'm enjoying what America has given me. Freedom of speech and freedom of expression. Non-violently, with zero violence involved. Know that. if the Council General of New York and the ambassador of Senegal and the Senegalese ambassadors around the world do not give us our IDs, we will go protest in all the embassies, in all the ambassadors' living areas because they closed the consulates and they closed the embassies. We will go in their homes, in front of their buildings, in front of their homes and manifest there. I ci bureau consul yi ci ambassade yi ba ñu jot li nga xam ne mooy suñu carte d'identité dama am ay sources sûres yu ma ne Macky Sall dafa fas yéene jàpp suñu ay carte d'identité saboté yi ci diaspora bi nañu am fulla am fayda dañu xeex ba yegg fii nañu jëli suñu ay carte bu ñu ko kenn xañ nee na gars yi nañu jàppagum carte d'identité yi denc ko bu ñu defee bu ñu deful pression ñu jaar foofu maanaam consul bi mi ngi jàppalu ay sénégalais di leen fenal pour ñu ne leen bu leen dem ci ambassade yi ak yooyu di ko di di di di di di protester voilà bu leen dem du ñu def loolu dañuy dem protester par force protester suñu droit la Amérique moo ñu ko jox it's our right and we will go protest suñu tëjee consulat yi ñu dem kër consul suñu tëjee ambassade yi ñu dem kër ambassadeur nañu dem seen kër yi ci quartier résidentiel yu rafet yi ñu dëkk ñu tànkal leen borom quartier yi dañu leen di ne ñu abal leen parce que bruit bi bari na voilà ñoom la ñuy topp ñoom pas ñun bu ñu duggee ci tuunu muus tuunu janax sax nañ leen fa fekk ba jot suñu ay carte d'identité pas avec violence mais pacifiquement ñu tëdd fa di fa lekk di fa tëgg ay sabar di fa yuuxoo di fa jooyoo ba américains yi leen joxe leen carte d'identité jàmbur yi nañ leen won ne ñun ñoo leen gën a tekkeeku fépp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu